moo ko doole sax euh, li nga xamante ne da koy def ci biir daara yi ndax mi di wax ak yow de sama ñaari doom fi ñu yaakaar naa ñu ci ñeenti téere xam-xam farlu gi ci am ak euh, waxtu wu nekk rek dar si waxtu wu nekk daal ni mu leen di toppatoo sax boo ko takk rek passé na te ni mu koy defee ci sama sama njaboot noonu la koy defee ci njaboot bu yaatoo yaatu moom wax dëgg yàlla euh, nit la koo xamante ne parce que nag xam-xam yi léegi daanaka yaatu na. bari na lool waaye borom xam-xam bu dëggu comme Abdoulaye ak Mujahid bu toll ne moom dafa dafa jafe man moo tax waxtaanam fu ma ko dégg rek daanaka su ñëwee ci jataay bi te teewul micro bi rek daanaka du ma du ma am saboo ndax dafa xam-xam bu borom gëm tam ci dogu dafa jafe tam moom yàlla dafa dogal mu bokk ci borom xam-xam yooyu. ginnaaw bu loolu jàllee ki nga xamante ne mooy euh, sëñ Moustapha wax dëgg yàlla waral ndaje mi nekk suñu rakk. ndax Babacar Thiam maanaam yàlla nattu na ko jox ko melokaan boo xamante ne képp ku ngeen gis mu topp ci ginnaaw jox ko cër xam leen ne ko man yàlla damaa nattoo man nekk nit koo xamante ne ku doy waar laa képp koo ne topp nga ci man rek wax dëgg yàlla ñiy dox maanaam nit ku mën a muñ nga te Tapha rek lañ xam ci moom wax dëgg yàlla jox nañu cër boo xamante ne daanaka sax damay wax ne jomb nañu ndax wax dëgg yàlla. comme ni ñu ko waxee noonu rek euh, yaakaar naa ne comme ni ñu ko waxee keroog bi may sama waajur bi joxee may dem ci daara bokkoon na ci ñi nga xamante ne dafa dogu woon ci ne maanaam lu mën a xew rek moom man fu ma jëm ko fa yóbbaale kon defe naa ne suñu ànd loolu lu yàgg-yàgg la mbirum suñu borom la du mbirum doomu aadama kon vraiment euh, ñi ngi koy ñaanal yàlla yàlla def ko mag euh, te guddalaaw fanam wéral ay cëram Euh, ginnaaw bu loolu jàllee maanaam euh, am na loo xamante ne faaw ñu sànni ko ci muy mbirum mbirum réew mi ndax sëñ Abdou Lahad bi muy ubbi waxtaan bi dafa wax wax ju am solo ni sunu borom day mi ngi sant borom xam-xam yi nga xamante ne maanaam dañuy gëm seen xam-xam topp ko bañ koo jëndee maanaam li ñuy tuddee buuri adduna yi te muy wax bu am importance boo xamante ne bu mat a dégg la te mat a déglu. parce que alxuraan ku mel ne Seexuna Seex Mat Bamba bi muy ñëw fii kenn ku ne xam na ne fi la fekkoon alxuraan fekkoon na fii bi di ko mokkal ku mel ne Seex Maam Alaaji Maalik kenn ku ne xam na ne fa mu dëkkoon dañoo mokkaloon alxuraan ba dañ ko daan taaxuraane ndax mokkal buñ ko mokkaloon waaye mag ñi lan moo nekkoon seen yitte ba ba natt yi leen dal dal leen loolu yaakaar naa ne lu mat a xam la lu mat a la Sénégal toll foo xamante ne rek jafe-jafe yi fi nekk nii lu mën a waxtaan lu mën a waxtaane la parce que réew mi fi mu toll nii yaakaar naa ne képp kuy wax te waxoo li ci xew ci réew mi soo amee xam-xamit sa xam-xam jëriñoo parce que borom xam-xam dëgg maanaam bu fekkee loo xamante ne dëppoo la dëgg dafay feeñee ne lii du dëgg kenn ku ne xam ne lii xew ci Sénégal lii xew Sénégal yaakaar naa lu mu néew néew rek semaine bi passé li ñu tëj ci Sénégal mat na six cent personnes dañuy wax ne boo demoon ba Côte d'Ivoire dictature ba fa nekk sax eggul foofu jàpp nit ñi di leen yeew comme ay jaam loolu mu nekk loo xamante ne lu ñu war a waxtaanee la gis nga sunu Sénégal gi li may wax toujours rek dañ ñoo bëgg a jàpp def ñooy jaam ne rawatina seen yi téeméer téeméer yi ñuy joxe ni junni junni yi joxe nii def ko ci développement réew mi kenn ku nekk sa kër boo amee fukki doom juróom-ñett yee tekki moo ko gën. li ñu def ay jàmm la ñu bëgg a def li nekk ci réew mi nañ ko xeex ku ko xeexul doo góor Macky Sall mën na nekk nit koo xamante ne day dem partout ci Sénégal toog ak kilifa diine yi ne leen ñaareelu mandat su ma ko defee damay dem bëgg a woote ñett ñetteelu mandat bëgg a rey askan wi ba a teg askan wi loolu moo ko seetaan doo góor nañu de dëgg te yàlla tax bari na borom xam-xam yoo xamante ne seen xam-xam yi jëfandikoo wut ko parce que borom xam-xam buy nëbbu dëgg doo nit doo borom xam-xam. te dëkk bi loolu képp moo fi nekk Macky Sall ñi muy tëj na ko bàyyi Macky Sall doomu jàmbur yi muy jàpp di leen yeew na ko bàyyi réew mu ci teraanga lañ ko ko joxe woon kenn joxe ko woon ci ci fitna léegi nag bëgg na jàpp doomi Sénégal yëpp teg leen ay fitna six cent personnes tëj na ko dans la semaine bi passée ñenn ñi mu jàpp leen jël ay bu takk seen tànk yi kenn ku ne xam ne loolu kenn du ko def ak góor mënuñ ñëw ñu jox ko Sénégal ci amin amin mu set mu ñëw bëgg a jàpp ñun ñay jaam am na loo xamante ne képp ku ko seetaan doo ab gor doo ab jullit jërë ngeen jëf wa salaam. jërëjëf Alaaji Babou sa jàll